Donc euh, cette année, on voit que l'union fait la force avec l'unité de toute la jeunesse euh, qui sont sortis en masse sur l'intervalle de 8h à 11h, malgré la grande superficie qui est là. On est parvenu à nettoyer tout ce qui est insalubrité au niveau de cette cimetière. Donc nous ne ferons que prier encore davantage pour euh, que que dame vienne, je lui prête longue vie et continue à prendre ces initiatives-là. Maintenant, si on peut encore généraliser sur d'autres cimetières qui, se trouvent au niveau de la commune de Giguinchor, ou plus particulièrement euh, dans le cas général au niveau de la région de Giguinchor, là, ça ne sera que bénéfique. Donc pratiquement, ça c'est notre dernière demeure et tout le monde va se retrouver dans ces sites-là. Donc nous souhaitons que cela euh, se fasse dans pratiquement toute l'étendue du, du territoire national. Par rapport euh, au désordre, là, c'est désolant en fait, c'est désolant. Et nous ne pouvons que s'en regretter par rapport à cette situation. Parce que normalement, si vous allez pratiquement à Dakar au niveau des autres cimetières, donc vous voyez qu'il y a l'ordre qui, qui, règne. Il y a des passerelles qui sont là qui nous permettent de passer. Mais ici, malheureusement, la situation est un tout petit peu déplorable. Mais peut-être euh, la prochaine fois, s'il y a un site qu'on doit créer, parce que là c'est pratiquement plein, si on doit créer un autre site, on doit aller avoir des allées pour permettre aux gens de pouvoir passer correctement. Et maintenant, nous lançons un appel aussi à la commune, nous lançons un appel à toutes les, personnes qui peuvent euh, faire des bonnes actions, de venir en aide par rapport à cette situation. Parce qu'il y a des murs qui sont tombés, il y a la situation est un tout petit peu calamiteuse. Donc il faut, on lance un appel à toute la population, euh, surtout les euh, bienfaiteurs, de pouvoir accompagner la jeunesse et les religieux pour qu'on puisse réfectionner ces endroits qui sont un tout petit peu défectueux. espace bi nga xamantene ne ko kenen bokk ak kenen nga jël ko lolu moñu dal tay ci armée li bo yenoo new bëgg dem fi barab day sori fi mu ne daw len lenn rek moo dimbalé bañ man fé sul moy il faut ñu support poser new yi parce que amna ci armée yo xam bañ leen souré ba légui ça fait 40 ans donc armée yoyu dañ fay bayyi plaque ba waye suñ soulaté ba paré nañ fa samp plaque ñu xam ne diw ak diw ño bokk fi plaque yi mëna dem ba doon 6 plaque ci ben armée te du yàq dara waaye fii man maa fi suul sama baay keneen du fi suul déedéet ndax sa baay jëndu fa ñëpp a ko bokk comme ñëpp a ko bokk nag te benn suulukaay la defal sa plaque bu baay buy wane ne sa baay fii nga ko suul waaye bu keneen indee baayam it na fa def plaque ñoo xam ne fii la suul baayam loolu rek mooy initiative bi amul beneen initiative ñu mën a def bu weesu loolu deuxièmement ñi nga xamante ne ñoo yoroon dëkk bi dañoo bàyyiwul xel ci ne nit day dee day dund te bu bu dee dafa am kër jox nañ ñuy dund kër mais joxuñu ñii dee kër te ñiy dee lañ war a jëkk a jox kër avant ñuy jox ñuy dund loolu moo tax armeel yi tuuti ab armeel ay armeel day yaatu ndax comme nit ñi dañuy dee te dañ leen di suul te kuñ suul duñ la yóbbu duñ la suulwaat du la feneen loolu dafa dafa doon loo xamante ne lu mot a bàyyi xel la kuy lotissé bala ngaa defati dara jëkkale génnee armeel gannaaw bi nga génnee jaamukaayu yàlla ba pare génneel armeel ñu wane ne nit ñi dañuy dund te dañuy dee nga soog a séddale ñuy dund fañ war a dëkk ndax kii dund mën naa tabax ay étage waaye ki dee moom mënee su koo tabaxal étage kon loolu mooy problème bi espace bu tuuti li mu tuuti tuuti ci kii dund kii dund mën na caa xaj waaye ki dee moom liñ man rek moo ci nekk seen étage mooy suul suulaat ci kawam suul suulaat ci kawam mu doon ay étage ndax bu ëllëgee yowmal xiyaam néew yi dañuy yeewoondoo te bu ñu doo ki féete kaw mooy jëkk a ka ca topp topp ci ka ca topp topp ci ba ñëpp jóg rek hmm. nii lay demee macha allah bu ko benn armel bu ne mën naa jël téeméeri nit te du yàq dara waaye nag ñun suñuy xol moo xat ba nga xam ne boo ñëwee fekk suul ci sa barab sax nga ne la maa ko moom barab bi kenn moomu ko ñëpp ci bokk yem lii rek mooy problème bi na nit ñi comprendre noonu macha allah ku ñëw fekk ñu suul ci sa barab nga muñ fekk xam ne tableau ba fa nekk moo moo fekk sa tableau baay wala moo fekk sa tableau mbokk rek mu jeex tàkk suuf si ñun ñëpp ko bokk te ku dem ci suuf si say